caba di doom ci ki nga xam ni moo di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi génnati na def ay révélation ci li nga xam ne moo ñeel dossier Sonko ak Adji Sarr cette fois si nag moom dafa attaqué ki nga xam ni moom moo di Mati Trois Pommes waaye nag moom lam ko xasee moom moo doy waar ndax nee na ko yow da nga nekk ab jigéen boo xam ne da ngay seq leneen ak yeneen i ay jigéen nekk nag ab accusation bu doy boo xam ne magistrat Pom mi soutenir saa su nekk Adji Sarr ba noppi di yëkkati ay kàddu yu doy waar di ko teg ci kaw Ousmane Sonko am na ab boo xam ne ak i leeral yu mu war a indil Sénégalais yi te ba noppi ki nga xam ni moom moo di Thiaba di doom ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ba ba tey mi ngi génne ay secret li nga xam ni moom la Sénégalais yëpp doon lam-laamee mu di complot bi dox ci nga xam ne ñoo def telle sorte que mu am problème ak Ousmane Sonko jiiñ ko mbirum viol loolee lépp dina leer si ay secret mi ngi xawee ku benn par benn te tôt ou la vérité finira par éclater.